Euh, Sanoub dañu dañuy ñëw léegi ci euh, avec l'équipe A l'équipe A tout récemment a été tenue en échec par le Togo c'est c'est une c'est une logique selon vous bah oui ah c'est une logique ah parce que aussi euh, qu'on n'oublie pas une chose ah xam nga dañu nekk ci compétition dem fekk ji équipe parce que aussi il faut que li Aliou wax man je le rejoins on ne peut pas cracher sur euh, un, un point comme ça ci compétition bu toll noonu donc moi je pense que aujourd'hui aprè nag mën nañ dugg nag ci yeneen considération yi mais pour man Sénégal effectivement bu waree forcer forcer mais keroog <laughs> mais on a frole la la la, la défaite ah. considération yi léegi on va <laughs> détailler euh, je vous